fan la. ah défaillance bi nag man mënu ma ko wax parce que su ma ko man duma wax loo xam ne xaw ma ko. Mm-hmm. xam naa ne daal mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi leen di may grâce. ca remplir conditions yi pour am grâce kan moo koy def lan lañ ci am lu tax ñu koy def kooku nañ def enquête état lu mu bëgg xam-xam ko mais maître ku ñu may grâce te remplir conditions yi est-ce que mun nañ la toppaat ci quoi que ce soit wala c'est trop tard non président xasee ba signé décret bi rek jeex na jeex na waaw moom yow ak loo munti def te boo remplir conditions vraiment duñ la may grâce ba pare di ko rapporter waat mm. léegi kay nañuy sanctionner ki nga xam ne moo la proposé pour ñu jox la grace te waroo ko am. mais bu ñu la xasee ba signé décret bi c'est fini. partie bi mooy perdante bi. beneen question non kooku sax xam nga affaire u peine la. Mhm. peine partie civile yi yoonam nekkul ci pen mhm. maa ngi ko doon wax euh, temps yi rek am na sax sama ay yenn affaire avocat yoo xam ne dañuy ñëw nekk partie civile mel ni procureur. Mhm. avocat am na yoo xam ne du cërëm. dafay metti rek mais du cëram ak lu sa xol dem ak lu sa partie civile mm-hmm. euh, yow victime bi ak nu munti mettit bi muy am ak yooyu mm-hmm. mais na nga xam ne yow avocat nga mm-hmm. am nga foo war a yem lu lépp nga war a wax lu lépp nga war a ñaan avocat dafay am fu mu yem li ci des procureur ko yore procureur tamit dafa am cër avocat ñëw jël cëri avo cëri procureur c'est pas possible te am na ci ay partie yoo xam ne ay avocat yoo xam ne bu ñu doon ne partie civile presque dañuy foog ne procureur la waroo a ay peine avocat day plaider du requérir. mais kooku ñu may grâce noonu ba mu dem partie civile bi nekk ci cause boobu nan lay def ba jot ay intérêt su nekkee gisatu ko loolu moo tax. may non xam nga loolu. Euh, peine bi affaire u part affaire u partie mhm. parce que euh, peine bi procureur moo ko yore. ordre mhm. public pour tëj bi. Mhm. partie li nga xam ne moom mooy cëram mooy laaj ndàmpaay. waaw ndàmpaay laaj ndàmpaay ci bien yi ki nga xam ne moom la nit ki mën nañ la tëj kaso ba pare. ñu teg sa loxo ci sa alal. kooku jotawul ak kaso bi dara bu fekkee nag amoo alal nag ba amoo alal mhm. nga xam ne amatoo foo fayee ko ci nuy def lu ñuy wax contrainte par corps mhm. Mhm. bu boobaa da ngay prouver ne kii tëj nañ ko yoreel na ma amul alal bu mu ma fayee léegi dama koy delloo delloowaat kaso waaw su ko defee nga def contrainte par corps nit ki ñu delloo ko kaso ba ay mu def ay deux ans euh, tëdd ko kaso loolu mooy pay bi waaw pendant qu'on y ñu ngi wax ci wàllu défaillance ci wàllu justice man jàpp naa ni doo fi toog ba jóg te duñu wax un peu les conditions de détention yi nga xamante ni euh, quand même sénégalais yi ñu ngi koy dund damay faral di dégg ay homme de droit yu mel ni yow euh, di wax ni euh, en principe prison exception la war a nekk mais Sénégal règle la fi mu doon lu metti on parle tout le temps d'un problème qui est récurrent c'est les longues détentions préventives on parvient toujours pas à avoir de solution par rapport à ça le nombre pléthorique bi ñu am ci prison yi quand même c'est exagéré mm. est-ce que jàpp ngeen ni que dinañu dox jamono ba vraiment condition yooyu mën a soppeeku loolu day la ñuy ñaan mais xam nga waxuma la longue détention sax mais lieu de détention yi mm. moo jaaduwul parce que nit ki aussi bu defee jéeya ba ñu ko tëj ko nekkul xar nekkul xaj nit la comme yow def na erreur boo xam ne yow ci sa bopp ñu koy tëj sax mën nga ko def ëllëg donc il faut ñu respecter ko nit ki ñuy tëj dañ ko war a respecter mettre ko dans des conditions yoo xam ne c'est de condition humaines mais jël foo xam ne fukki nit a fa a nekk nga def fa téeméeri nit mm. nga xam ne dañ leen di dajale bu ñuy tëdd dañ leen di dajale kii boppam féete nii kii tànkam féete ne mais bu ngeen ko gisee musiba la mm-hmm. musiba la ci loolu lañ njëkk a commencé waxuma balaa nga wax longue détention wax détention ci boppam mm-hmm. fii bu ñu la tëjee ci kaso yóbbu nañ la safara mm-hmm. franchement la ñuy lekk doyut niñ koy lekkee amul condition d'hygiène bëri nañ ci ci ci ci ci prison yi ba nga xam ne war nañ tabax yeneen prison war nañ def ay prison yoo xam ne c'est c'est des prisons humanisées nga xam ne ay nit ñoo fa nekk parce que ñu ñuy tëj dañuy génn suba dañu am ndey am baay am jabar am doom am lépp def nañ erreur ñëpp a ko mën a def. Mhm. ñu tëj leen wala li ma doon wax loolu mooy tëj kaso du sanctionner nit du fayante ak nit dañ lay yar. yóbbu la foo xam ne boo fa génnee di nga mën a delluwaat ci nit ñi doomi aadama loolu moo mooy kaso kooku nag dañ lay yóbbu ci condition yoo xam ne da nga war a jàng liggéey mhm. da nga war a jàng métier mhm. bu fekkee ne jàngaloo école mën nga fa jàng école mais loolu mooy kaso mais kaso du ñëw rek sànni nit ci fenn foo xam ne daal di ko fa bàyyi xiifal ko et tout di ko loolu vraiment dépassé nañ ko tey. Mm-hmm. longue détention yi man ci ñi ci njëkk a wax laa wax dama ne li ko indi mooy procureur de la république. c'est-à-dire li nga wax dëgg la. le principe c'est la liberté l'exception c'est la détention mais fii le principe c'est la détention exceptionnellement lañ lay may liberté provisoire. gis nga liberté provisoire bu buñ koy ñaan. le procureur automatiquement sans que mu xool dossier bi sax dafay jóg rek opposé wu. ne ordre public. mais il faut ñu wax ñu luy ordre public. trouble à l'ordre public. procureur boo waxee mu ne la non je me pose à la liberté provisoire parce que yow su ma ko bàyyee yaa trouble te bi yenn taay sax mënu la wax naan euh, lan lan mooy. trouble à l'ordre public décision yi ñu jël activement. mais cest que ay notions la loo xam ne. duñ ko appliquer à la réalité. Mm-hmm. trouble à l'ordre bi mooy tey buñ la tëjee kaso buñ la génnee. nga ne di nga defaat njaaxum wala sa famille dinañ dem fayu ji wala des extra ak yooyu loolu mooy trouble de l'ordre public mm-hmm. mais loolu boo koy def da ngay da ngay joxe ay exemple joxe ay firnde yu wane ne kii bu ñu ko bàyyee dina yëngal réew mi mm-hmm. trouble de l'ordre public mooy yëngal réew mm-hmm. mooy yëngal loolu mooy trouble de l'ordre public mais bu fekkee ne amoo ci firnde opposé wu ci liberté provisoire yaa yaa yaa ngi tooñ nit entre pouvoir bi procureur am bu ñu bu ñu jàppee nit police wala ñu yóbbu gendarmerie bu ñu ñëwee procureur lañ koy wan. procureur moo war a wax ndax dañ koy atte wala dañ koy bàyyi mais pour procureur dañ ko may mu am pouvoir décerner ko mandat di dépôt balaa ñu koy atte. te léegi loolu c'est systématique. procureur boo ñëwee day gëm rek def mandat de dépôt daal di renvoyer. ca xoolal bu ñu renvoyer tey nga nga sàcc. wala mu am partie civile. tribunal war la àtte. flagrant délit xanaa flagrant délit mooy jooni jooni. Mm-hmm. France ñu ngi koy ooyee comparution waa ji nga xam ne moom nga tooñ ñëwut wala amul avocat ah, dañ koy renvoyer delluwaat la ci kaso bi ca yoon dafa ne loolu bu amee bu fekkee ne waa ji porté plainte ñëwut mm-hmm. na nga ko atte ci kaw peine bi li nga xam ne mooy intérêt civil nga réservé ko mm-hmm. mais luñ loolu duñ ko appliqué jamais da ngay gis koo xam ne dañ ko jàpp war ko jugé tey mm-hmm. mu toog fa deux mois trois mois ñu ne parce que parti civile bi amul convocation duñ ko atte mu def ñetti weer ñu atte ko bàyyi ko wala ñu àcc ko ko avec sursis. Mhm. du laa bëggoon ñëwaat moom parce que léegi dafa mel ni que ni fii Sénégal tëj fi ndam la. waaw te parfois nga jël comme xale bi nga xam ne fan yee passé tëjoon nañ ko fi mu def xaw ma ci ci kaso bi. bi génnee ñu ne li mu waroon def ay mois rek la yàq nañ njàngam déjà. mais mm-hmm. aussi est-ce que loolu aussi euh, jotul fi ñu toll nii pour ñu jóg ci taxaw ci parce wax nga ko léegi boo nekkee ci biir kaso war nga fa mën a jàng war nga fa mën a liggéey mais aussi ñi nga xam ne que ne dañ fay nekk war nañ fa mën a am loo xam dañ ko fay jëlee. loo xam lu weesu loo xam ne bu ñu génnee ñu war a duggaat ci biir kaso bi mais moom boo dee xool dafa am lu bëri lu mu rëccu parce que ay at la fa def ci ku ñu waroon tëj ay weer mu yàq lu bëree bari nag ci ci dundam mais dañ fiy tëj ay étudiants yoo xam ne xamu lu ñu def mais dañ war a def examen mm-hmm. mais bu doon France la mais dañ la def ay euh, des conditions d'encadrement ba nga xam ne di nga mën a dem defi sa examen di nga am liberté du du tere justice dina la atti dina la atti je pense que Mati mu ngi wax affaire Ousseynou Diop ak euh, Sayer Sayer Ousseynou Kébé man ci avocat laa bokkoon xeex naa xeex ba ñu enrôlé affaire bi ba àtte ko. ba bàyyi nañ ko démb la jógee suma bureau. mais loolu bu amee ba ñu ba ñu libéré la ba pare perdre loola temps boo xamante ne euh, fekk na yow euh, par exemple neuf mois nga waroon tëdd ñu tëj la ay années qu'est-ce parce que xaw lan lañ la mën a jox ba nga rattraper yow sa vie li nga ci perdre yëpp. waaw loolu question bi nga posé am na importance. Mhm. mais euh, léegi Sénégal institué nañ depuis 2016. Mhm. Cour suprême am na benn chambre bu ñu fa ubbi. bu fekkee dañ la jàpp. Euh, téye la ba at tëj la kaso mooy détention provisoire nga tëdd kaso ñu àtte la bàyyi la ak bàyyi la complètement bu boobaa boo saisiree chambre boobu nañ la jox ndàmpaay mhm. mais nag bu ñu la tëjee benn fan sax wala ñu tëj la parce par euh, avec sursis mhm. mënatoo am ndàmpaay mhm. c'est-à-dire bu ñu la dégg naa fii temps yi ku ñu tëj génne ko euh, je crois Mbour la nekkoon ñu ne il faut mu dem ñu ndàmp ko mais kooku tëj nañ ko quand même avec avec avec avec sursis je crois buñ la tëjee rek mhm. amatoo ndàmpaay balaa ngay am ndàmpaay fekk ñu setal la wecc voilà ñu acquitté la wala ñu relaxé la que boobaa mën nga dem benn chambre d'indemnisation bu ñu ubbi cour suprême boo fa demee effectivement da ngay da ngay layoowaat encore dangay ngay layoo nguur gi pour laaj ndàmpaay maître dama am benn question après ñu waaw dama sànq da Daouda da dafa wax ne euh, dafa dis lu mu mësut gis peut ci carrière journalisme am mooy ku ñuy jugé pare gu ñu ñu gracier la ñun aussi dañuy toog di déglu actualité di ko suivre ñu gis ne dañuy souvent dañuy tuumaal pouvoir exécutif ni muy dugalee loxoom si li nga xam ne mooy le pouvoir judiciaire euh, ñu gis aussi seetaan si élection yi jàll ñu précipité ay projet de loi yóbbu ko assemblée pour di ci dindi ay moo wala ay libellé pour di empêcher yenn candidats yi ñu participer di gis aussi ay procès yu daan jël un an deux ans si procédure yu normal di gis ne ay procédure yu gàtt la ci ay délais yu court rek dinañ dina mën a am euh, euh, dinañ mën a am verdict bi comme le cas de Khalifa saal de par votre expérience ndax tey kon loolu c'est pas avéré que le pouvoir euh, exécutif téye na euh, teg na loxoom bu baax ci li nga xam ne mooy pouvoir judiciaire ba saa yu ko bëggee utiliser rek utiliser ko nu mu ko neexee. man loolu boo ci d'accord. parce que dama ci am expérience parce que am ñu bëri dañuy wax amuñ man dama nekk avocat de l' état su Abdoulaye Wade nekk avocat de l' état sous sous président Macky Sall nekk avocat pendant trente quatre ans li ñuy wax ci pouvoir exécutif ne dafa jël loxoom teg ko ci judiciaire bi c' est pas vrai gis nga affaire indépendance justice gis nga Sénégal dañ organiser justice magistrat boo xam ne da nga indépendant dangay ngay indépendant mm-hmm. da ngay indépendant musuma gis man pouvoir exécutif di jox ordre ñemewu ko sax gis nga président de la République du wax ak juge gis nga ministre de la justice ñemewul wax ak juge am na juge yoo xam ne kii ko tu choix munoo wax ak ñoom bu ñu amee dossier mhm. ki ngay waxal mooy procureur de la république président de la mun na am bëgg-bëgg jaar ci ministre de la justice ministre de la justice jaar ci procureur ne ko man lii laa bëgg procureur c'est comme un avocat mhm. day ñaan comme avocat ni muy plaider teg ko ci ay yoon mais que le juge bi nga xam ne mooy àtte pouvoir bi ne ko defal lii ku ko ci def yow la neex. mais pourquoi nit ñi am impression boobu. perception la dafa nekk à deux vitesses. une les opposants une autre pour les pour les autres. mais impression la presque ñu bëri xam nga loolu. loolu perception la. yenn saa yi aussi mu am ay dogal yoo xam ne ay juge koy dogal kenn du leen ko sant ñoo koy sant seen bopp. parce que dafa leen neex pour ñu essayer xëy na ràññeeku pour ñu ràññee leen wala yooyu. am na ci ay nit lañu. mais ça pas dire que dañ leen ko sant. Mhm. moi je n'ai jamais vu le pouvoir exécutif donner des instructions à des juges pour ñu juger ci telle façon wala ci autre façon ca yàlla tax may wax te yore ko laa nekk. li ma ciy li ma pour man. du instruction bu nga xamante ne dañ koy jox directement juge le problème fondamental pour man problème système la parce que ki nga xamante ne bu bu li ne wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura conseil supérieur de la magistrature le président de la république moom mooy président bi le ministre de la justice moom mooy vice président bi foofu foofu la ñuy décider avancement juge yi kii fële lañ koy nommé kii dañ koy muté mu dem Kolda wala dañ koy yóbbu mhm. ki nga xamante ne moom moo di la muter heure bu ko neexee di la juger heure bu ko neexee su fekkee ne yow da nga nekk ko nga xamante ne carriériste foofu bu mm-hmm. fekkee ne yow carriériste nga bëgg peut-être du lay étape bëgg nga peut ñu def le juge d'instruction bëgg nga nangam ak nangam mm-hmm. am fu nga xamante foofu nga bëgg ñu nommer la mm-hmm. di nga def li nga xamante yaakaar nga ni moom mooy neex pouvoir bi pour ñu mën a accéder loolu donc man pour pour man système bi foofu bu ñu de génne nañ ci président génne ci ministre de la justice bàyyi juge yi seen bopp ñu xool en fonction ñoom xool compétence ñuy ñuy jiital peut-être problème yooyu dinañ ko mun régler mais tant que système boobu changé wuñ ko li ñuy wax ni toujours dafay am parce que di nga ci gis ko nga xamante ne peut-être carriériste la di ci gis ku nga xamante ne peut-être respecté na liggéeyam mais da ngay xëy benn jour ñu ne muté nañ ko dañuy ñëw demander il y principe en droit qui dit que la plume est serve et la parole est libre tey jii procureur de la république su de la justice bindee ñëw na ko dama bëgg xalifa Sall nga demander cinq ans de prison ferme. Mhm. il a l'obligation de le faire. Mhm. Ah. les mains liées parce que la plume est ferme ñu bindee. maintenant nag mën na ko demande mhm. mën na ko demander. juge ba def lu ko neex après. Euh, dama jox chaque fois l'exemple de de Baratal. exemple Baratal benn procureur ici dañ ko bind que ni na nga requérir nangam na nga requérir cinq ans. mën naa tudd sax juge bi. Mhm. juge bi moom mooy ki nga xamante ne moom moo jàppale woon Cheikh Béthio Thioune bii. Mhm. moom moo nekkoon fii Dakar. Mhm. bi mu ñëwee ñëw ne ñu bind ko ñëw ne ko dañu bëgg nga requérir cinq ans contre Bara moom mu ñëw devant la barre. mu ni man dama am li ñuy woowee étique professionnelle ak éthique personnelle. éthique professionnelle bi daf na ma la plume est donc war naa requérir cinq ans. mais moo intime conviction est que Bara Tall n'a devant la barre. dossier boobu maa ko yore woon. voilà a le juge a euh, tranché a relaxé Bara Tall purement purement et simplement. waaw mmh, mais mais mmh. li ma muté. Mmh. mais mais mais mais d' accord ma trop ak li Daouda wax ci conseil supérieur de la magistrature. conseil supérieur de la magistrature président de la République moo koy jiite ministre de la justice mooy vice président mais amuñu fa doole. ay magistrats ñoo fa nekk. grade bu nekk représenté na fa. décision yi ñooñu ñoo koy jël. c'est pas le président de la République qui prend les décisions au niveau du conseil de la magistrature c'est le conseil magistrat yi ci seen bopp ñoom ñooy muté ñoom ñoo nekk au niveau du conseil de la magistrature loolu aussi espèce de perception man d'accorduma jamais ñu def conseil suprême de la magistrature boo xam ne président de la République du ko jiite parce que on ne veut pas une république des juges justice magistrat yi moomuñu ko toujours ko parce que jël conseil supérieur de la magistrature boo xam ne jël magistrat yi nekk ci seen biir mais magistrat yi c'est pas encore corps comme ça uni nga xam ne amul benn contradiction et tout ça mm-hmm. mun na am mu ay problème entre ñoom léegi moo tax président de la bi dafa war a nekk pour garanti ko tu léegi li ñu mais am na ci influence li ñu mën a wax président mais mun def ay proposé mais bu ko buñ ko nanguwul mm-hmm. magistrat yi nga xam ne dañ dañuy wote buñ ko nanguwul du jàll li may wax rek mooy indépendance magistrat moom mm-hmm. kenn mënul wax ne amul fii Sénégal mais nag ci nit kilo président mun na def proposition yoo xam ne conseil bi da koy rejeté. c'est tout parce que ñoom ñoo koy décidé. mais bu fekkee de li ñu mën a def mooy ñu ubbi conseil suprême de la magistrature comme la justice a rendu au nom du peuple sénégalais. ñu jël conseil suprême de la magistrature dugal ci ay député dugal ci peut ay au conseil dugal ci avocat dugal ci ay magistrat su ko defee ñoom dinañ équilibré mu doon un corps boo xam ne ça représente un échantillon peuple sénégalais mais bàyyi ko rek ak ay magistrat nguur. nommés par le ils sont nommés par le président. Mm-hmm. non bu fekkee ne tey da nga ne par exemple bu euh, a. oui c'est le président qui les met là-bas non non non bu dee assemblée nationale. mais assemblée nationale ñooy désigné. ça c'est c'est les propositions que vous faites. c'est ça mais de par votre carrière vous reconnaissez monsieur le euh, maître Seye. qu'il y a des problèmes au niveau du pouvoir judiciaire wax nga ko sànq. mais am na problème kay. y' a problème yëpp dañ ko ramener à des problèmes politiques. ñun dañuy mais ñun dañuy wàccewuñu ko ci niveau politique. comme ni ko Pape Cheikh waxee sànq da ngay gis procès bu war a def. deux ans man dugal ñoom ñëpp dañoo baax. waaw d' accord waaw dugaluma la j' assume. j' da ngay gis procès bu war a def deux ans wala bu war a def trois ans ñu lem ko ci temps boo xamante ne temps record du jamais vu. joxe verdict pour empêcher un candidat de participer foofu laay wax ne tey s'il y avait quelque chose à améliorer au niveau de notre pouvoir judiciaire yan proposition ngay jox. yow da nga bëgg bu procès amee ñu bàyyi ko mu am 10 ans ñu soog ko mais c'est particulier on a vu des gens yu ci yéen la. am na procédure am na procès yoo xam ne nit ki nga xam ne moom la ñu. parce que apparemment Yacine a bien vu. parce que boo jëlee boo jëlee boo jëlee l'affaire Khalifa Sall boo jëlee l'affaire Khalifa Sall. Mhm. wax dëgg fa yàlla ñun ñi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne am nañ habitude quand même di voir euh, ay procédures correctionnelles. Mhm. parce que procédure yi dafa am lu ñu. man moo tax li ma bëgg ñu xam ko yëpp tey. nga laaj ko ko. fi mu ne loolu bëgg nii parce que euh, on a devant nous ku maîtriser euh, yëfi avocat. waaw yëfi juge. te Coluche am na lu mu waxoon ci yëfi justice. Mm-hmm. Euh, ku ne ak sa bos. moom laa laajte sànq bu pouvoir. Mm-hmm. ak bu opposant waaw y les opposants et les autres. donc nous on a envie de d'en savoir plus. te loolu ñu bëgg nga nga nga xóotal te laaj ko <laughs> loolu laa laay wax cest tey tey tey. li nga xamante ne moom moo tey xel. ci mhm. dossier bu mel ni par exemple Khalifa Sall. Mhm. c'est que ñun amuñu woon habitude. Mhm. ñi nga xamante ñoom ñoo doon suivre des chroniques judiciaires. di gis benn dossier correctionnel. parce que dossiers yi dafa bëri ñetti façon dossier. wax na ko léegi flagrant délit procureur mooy ñëw placé nit ko su mandat de dépôt ñëw ne audience bi gën a jege ça veut dire que placé na ko lundi mën na ko mercredi ñu jugé la. la plupart mooy ñi nga dossier correctionnel la wala dossier criminel mhm. dossier criminel mooy agresseurs yi wala ñi nga xam dañu rey nit mhm. Mhm. juge d'instruction moo yor dossier bi dossier mën na def trois ans quatre ans voire cinq ans avant ñu koy juger dossier correctionnel également néew na boog ñuy gis ñu toog un an wala deux ans rek ñu jël ko daal di koy taxañ juger ko dossier Khalifa Sall dañu gis ne un an toute la procédure ay été faite ñu jugé ko condamné ko. deux ans ko appel mel ni lu ñu taxañ avant élection. enrôlé ko appel ah. donc donc loolu. moom mooy moom mooy rejoindre li nga xamante ndaw see moom moo ko. c'est-à-dire loolu dafay dafay dafay teexel. Mm-hmm. te loolu bu fekkee ne yow gis nga par exemple déroulement procès nu mu daan déroulé. Mm-hmm. tu vas te dire forcément am na ay raisons politiques. nga xamante ne ñoom ñoo ko suñu doon loolu mel c'est que dossiers yi bokkuñ. il faut que ñu waxante dëgg dossier yi bokkuñ. Hmm. léegi lan mooy nécessité dossier boobu ba nga xamante ne mu mën accélérer wu noonu. Hmm. am na li ñuy wax sax des dossiers signalés. ok dossiers yoo xam ne dafa concerner ay kilifa am na hmm. ñoo xam ne dañu am ay responsabilités. je crois que waruñ ko yàggal ci kaso bi. je crois que deux ans doy na pour ñu juger yenn dossiers yi. correctionnel ca dossier Khalifa Sall boobu ngeen di wax def na deux ans l' essentiel bu ñu lay atte nañ la may bu ñu la attee nga am say voie de recours. c'est-à-dire bu ñu la attee ca d'accord ci première instance nga am possibilité def appel boo kontaanul appel nga dem possibilité dem cour de cassation mais naan yëf yi gaaw na damay wax ne comme li Youssou Ndour li mu wayoon rek mooy mbaam meeg nit ki rek bu waa doxee wàcc mbaam mi ñu ne kii boobu dafa ñàkk fayda boo waree ci mbaam mi ñu ne dafa nekk Sénégal kenn xamul luñ bëgg bu yëf yi gaawee ñu ne gaaw na bu yéexee ñu ne yéex na mais je crois que am na ni ñoo xam ne façon nit yoo xam ne bu ñu amee problème en avec la justice plutôt il faut ñu gaawal affaire bi pour que nit ki gaaw xam fu mu féetee et ces citoyens lambda là qui pourrissent en prison waaw loolu mooy rejoindre un peu logique gu Daouda ak Yacine parce que juste sur deux vitesses quand même euh, maître Sey je pense que mënuñu ko bañ parce que citoyen ordinaire bi yow bu la jàppee ci loo xamante ne war nañ ko mën a peut-être évacuer mu dem kenn du ko def dañ lay bàyyi prison nga yàgg fa mu ñëwaat un peu ci li ñu waxoon sànq problème mu indemnité ak yeneen ak yeneen ak yeneen après ñu jàpp koo xamante ne am na tour ñu bâcler dossier bi euh, taxañ ko soit dañ koy tëj day dépendre un peu position moom parce que quoi qu'on puisse dire politique am na loxo ci justice bi ni muy doxee Sénégal. suñu constat xam nga ban d'accord naa ak yow que ñëpp war a yem mais c'est pratiquement impossible mais war nañ def ay efforts que modifier même texte yi bu ñu koy modifier pour que nit ñi ñu leen di gaaw di àtte te buñ leen tëjee ñu leen di tëj ci conditions yoo xam ne c'est des condition humaines loolu loolu ñëpp ci d'accord. mais li may bañ nga wax nga ne dañ bàkkale bàkkale le mot là bàkkale dossier dossier judiciaire kenn mënu ko bàkkale cest à bu ñu la mayee bu ñu la attee nga am voie de recours d'accord oo nga def appel nga dem appel d'accord dem cour de cassation mais magistrat yi lay atte dañuy xool dossier bi soog la atte kon mënuñu wax ne dafa bàkkale nañ mën nañu wax ne dafa gaaw mais est-ce que est-ce waaw dafay accélérer la cadence mais est-ce que mun na accélérer la cadence ci dossier man sama combat la. mais benn question lay posé cest à que tey tey tey boo amoon sañ-sañ changer dara ci justice ba nga xamante ne dina jaar yoon comme ni ñu ko bëggee lan lay doon. mais loolu bëri na. comme lan bëri na ko li mu wax nii. Hmm. que ñëpp doon benn ñu changer texte yi li may njëkk def mooy wàññi doole procureur. procureur. Hmm. li ci des mooy nit ñi bu ñu leen jàppee ñu respecté leen. ñu hmm. nekk bu ñu nekkee police ñu nekk ci condition yu baax. bu ñu leen di interroger seen avocat toog. def ko fii dans sur toute l'étendue du territoire sénégalais. buñ leen tëjee ci kaso ñu tëj leen ci condition yoo xam ne baax na. fexe aussi di ak ut ay magistrats yu doy. ay greffiers yu doy. ak matériel yu doy. parce que état nag lu mu na mu def ko. su ko defee ñuy àtte nit ñi dans de très bonnes conditions mais man damay dem France di fa àtte ay nit. di fa plaider. bu ñu la nee comparution immédiate 14 heures ñoom bañ nañ ko du ñu wax ay du ñu wax ay jour ay heure la wax. ñoo garaaw ñooñu. waaw 14 heures comparution immédiate 14 heures boo ñëwee juge baa ngi toog boo ñëwee 14 heures 5 tardé. amul tardé te dañ lay atte ci jooni jooni loolu mooy jooni jooni tout suite ñu atte la nga xam foofu it. Eh mais dañu organiser audience yi ñuy def nii ñun audience civile audience correctionnelle muy nekk 9h ba ba 3 du matin 4h du matin. boo demee dañu koy affaire civile commerciale dañ la naan yow sa affaire dina jaar 15h. Mm-hmm. yow bu 15h rek nga delluwaat si bureau dem liggéeyi. Mm-hmm. da ngay ñëw tribunal doo xam sa affaire ban ban ban lay jaar. tey nga ñëw audience bi commencé 9h suba nga ñëw audience bi commencé midi. Mm-hmm. mais loolu organisation rek la mais mais tubaab yeeg yooyu mais gënuñ ñoo nekk nit. gën dàqu ñu jàng. c' est que ñooñu gën a organiser. loo gis organisation la. gis nga boo amul moyen sax amoo dara am na noo xam ne boo ko organiser. mais dina baax. même tey boo boo waree ci amoo loon dugg am na noo organiser comme waa ji xale bi li mu woy rek ne mille francs noos. loolu rek la question d'organisation la Senghor bañoon ko ba ne organisation et méthode mhm. te foog naa ne am nañ boobu structure ba léegi mhm. mais mais mais fu mu feeñee mhm. justice bi il faut ñu organiser ko il faut ñu ut ay magistrats yu doy. il faut ñu am ay palais de justice yoo xam ne effectivement doy na. il faut ñu am matériel yu doy il faut ñu am greffier yu doy. def leen ci condition yu baax. ñu rendre la justice pour mu baax. alors après moi je dis pas que nous ne sommes pas honnêtes mais honnêteté ci justice itam dafa baax day yokk qualité organisationnelle. Euh, peut-être tubaab ñoom dañuy kii bu baax ci honnêteté. non tubaab sax dañuy seen justice. day suux de. oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr. partout c'est gis ñuy dóor ay décision yoo xam ne mais day am. foo xam ne. Mm-hmm. par exemple ñoom seen cour de cassation seen conseil d'état. Mm-hmm. dafa fa nekk nit ñoo xam ne. Mm-hmm. ay magistrats yoo xam ne seen honneur. seen bërëb ya set moo leen gënal xaalis wala leneen. xam nga mm. dañ naan kii kat Pape Pape Pape moo ko rendre. xam nga. muy sa honneur. Mhm. nga def ci sa sa sa honneur. foofu dootul affaire am wala doolu affaire mhm. honneur affaire dignité moo moo fay ànd. Mhm. ñooy rendre di équilibrer def jurisprudence loolu loolu mooy am. mais bu fekkee ne yow faale woo honneur faale woo. li ma bëgg a li a attirer attention un tout petit peu sur lu ñuy woowee surpopulation carcérale. bëri na fi lu nga xamante am na fi la plupart surpopulation carcérale moom moo koy indi. tey jii bu fekkee ni dem nga capacité am cinquante personne la. il y a 2500 personnes présentement. loolu nag kon naa ci mhm. c'est pas 2500 personnes. day ba nga xamante ne administration pénitentiaire cloisonnement bi war a am. ça veut dire que un délinquant primaire man muy doog a dugg kaso. Mhm. ñu ma boole ak kayit. ki nga xamante ne détenu provisoire la. waruñu ko boole ak un condamné. waaye man kaw kaw bi gëm naa ne tabax kaso jigul njiit comprendre nga <laughs> donc cloisonnement yooyu duñ ko am damay joxe chaque fois benn exemple bu nga xamante man ça m'a marqué sama carrière de journaliste mhm. chaque fois dañuy dégg la bande à Ino mhm. waaw mais bande a Ino rëbës moo ko formé mhm. rëbës moo ko formé. révélation de Daouda nekkuñu woon bokkuñu woon bande Abdou Konté Wakaam ñoo leen ñoo ko arrêté Pape Ndiaye Tëngéej moo ko arrêté Ino Thiaroye moo ko arrêté euh, Abat Talib Samba Alex ñu ko ñu ngi ko kiiwee Malika ñu boole leen ñoom ñëpp indi leen rëbës avec seen bande boo xoolee seen procès bi 89 personnes la woon seen seen audience spéciale 89 personnes parce que ku ci nekk ak say bande lañ boole ñoom ñëpp ñu groupé bi ñu leen boolee rëbës boole leen benn chambre la c'est la fameuse chambre 10 ils se sont découvert des affinités wu diisoo waxtaan xam ne ñun ñii bu ñu daanoo cuune yi ñoom ñoo tax ñu daano ñun kàngam yi bu ñu bu ñu bu ñu lëkkaloo ànd mën nañ génn peaufiner stratégie def évasion aywa lëmbe réew mi. la justice a failli ci mission. ci mission ci mission de socialisation. boobu noonu voilà dañ la war a yar delloosi la. ñoom ñu def contraire bi ndax. Rebeuss a fabriqué un super gang. e c'était la c'était c'était la bande à Ino pour wax la ni loolu noonu dafa nekk lu nga xamante lu fondamental il faut que ñu koy régler ay yenn détails yu ndaw ndawaan yooyu moom mooy indi jàngoro yu nganda mm-hmm. et je pense que justice bi bu ñu demee ba nga xamante ne jëm nañ ba régler problème yooyu je pense que dinañ régler problème yu bari mm-hmm. Mm-hmm. voilà maître xamal li mu wax kay mënu ma ci teg dara <laughs> <laughs> d'accord nga ci parce que jàngal na ko investigation na ci fa garaaw de Daouda est-ce que maître li li Daouda wax yéen en tant que avocat yéen ñi nga xam ne yow sa expérience yàgg na plus de 30 ans yaa ngi ci biir est-ce que yéen ngi ci def ay jéego ba gis ni vraiment promiscuité bi yéen a ngi koy jéem a fexe dindi ak surtout surtout ñu ngi yaa ngi wax sànq junj ne bu ñu lay interroger ci commissariat yi ñu sa avocat taxaw ñun nan la mën a nekkee ci limu avocat yi doyul. ci population loolu ñun ko xeex man ci ñi ko xeex ñi ko ngànkoon ci laa bokk. pour que vraiment bu ñu la jàppee police wala gendarmerie bu ñu la interpellé xeex naa ko ay ñaar fukki at. Mhm. daal parce que man ab man daaw ma politique. Mhm. man man ci organisme man ONDH laa nekkoon nekk vice président. Mhm. Euh, donc man ku ma xam ci droit de l'homme nga ma xamee ak ci avocat pour sàmm fi doomi aadama yi ak seen àq mhm. man lool laa xam mhm. lool ba man du politicien man je suis un avocat et un militant des droits de l'homme mhm. loolu laa xam ku ma xam loolu nga ma xam dañ ko yàgg di ko xeex ba léegi sax am nañ ci am nañ ci ndam mais xeex bi jeexagul parce que ni ñuy àttee nit ñi ak ni ñuy condition yi ñuy tëjee yi ñuy nekk ci kaso yi ak yenn procédure yi nga xam ne mu ngi ci code pénal bi mu ngi ci code de procédure pénale bi yenn temps bëgg-bëgg procureur boo ko defee mu lié la main du juge nga xam ne moom mooy atte procureur ni la nii ngay def par force da nga koy décerner mandat de dépôt yow noo def leen da nga koy jaar da nga koy décerner mandat de dépôt mooy le pouvoir lié du juge. yàgg nañ ko xeex. ay article quatre-vingt yi nekk ci code pénal bi yàgg nañ ko xeex. mais ba léegi mu ngi ci. mais kooku volonté politique lay doon ak ñoo xam ne. Mhm. dañuy xarañ mu nekk seen seen seen objectif. ñu xam ko di ko xeex mu mu ci mu mu ci am ndam. mais ñëw toog nii rek di gérer le quotidien mais kooku du tax justice bi. mais xeex boobu boo guddul fan duñ ko fekkee de. Hmm? xeex boobu buñ guddul fan duñ ko fekkee ah mais je crois que ñu ngi koy xeex fii di ko xeex sur le plan régional di ko xeex sur le plan mondial. ñu ngi koy xeex. Hmm. man am naa ci yaakaar lool. Hmm. mais fi léegi ay at nañ ci am ay jéego yu rëy rëy parce que état aussi danga koy def pression am na fu pression di àgg foo xam ne bu fa àggee dootul mënati résister il faut mu céder en plus que li ngay xeex pour yëleefu doomi aadama yi ca état du état boo xam ne dafa nekk fële état bi ñun ñëpp la ñun ñëpp la euh, doomu aadama askan état bu mënu ko dékku c'est pas possible am na loo xam ne bu dee seen seen seen bëgg-bëgg la ñu taxaw xeex ko dinañ ci am ndam. Euh, mais dañ ci amagul conscience wala yooyu peut mhm. am minorité ko ba koy xeex yooyu mais bu ko ñëpp xamee ba xam ne fii mooy yoon wi bu ñu ko xeexee am ci ndam. mais ban gis-gis nga am ci inertie bi nekk suñu texte judiciaire yi ak vide juridique bi ñu am. nga xam ne sooy xool di def ay recherche très souvent ci code de l'environnement que ce soit pour beneen ak beneen da ngay gis ne c'est des textes qui la. Euh, plupart depuis 1960 tey yéen yan euh, xalaat ngeen am pour euh, ñuy def mise à jour ci texte juridique parce que on a un réel problème dans ce sens. d' abord bu dee affaire euh, correctionnel la man mi di wax ak yow temps yi Ablaye Wade dafa créé woon benn commission pour mu réformer tout le tout code pénal et toute la procédure pénale def nañ dix ans di ko liggéey. ay mm-hmm. avocats ay magistrats yu xarañ def ay conclusions changer réformer tout mais ba léegi kenn appliqué jëbal nañ ko ministre président de la République jëbal nañ ko ministre de la justice kenn kenn kenn mais yow li ngay wax man li ma ci gën a soxal mooy ay texte de loi yoo xam ne du suñu réalité buñ leen nee nañ def benn texte dañuy dem ubbi dem seeti archive tubaab yi français yi jël seen loi ñëw plaqué ñu ko ca loi loi dafa dafa mel ni arxuraan aaya bu wàcc rek dafa fekkoon yenent bi nekk ci benn situation imaam nga waxal mm-hmm. ah imaam ci contexte bi aaya bi wàcc indi solution mm-hmm. loi noonu la mel loi da di nekk ci situation daa di daa di am problème mm-hmm. daa di imagine def loi pour situation boobu mu am solution donc il faut que mu coller ak sa réalité mais boo demee histoire yi France lañu ñu dund ba def ci loi nga jël ko ñëw indi ko feeñu loo xam ne ñun dunduñu ko tey dunduñu ko ëllëg. Mhm. daal di ko fi plaqué. Mhm. mais du duñu avancé loo fenn. mais ñun suñu inspiration wu loi je que mu ngi jógee ci cinquième république française. loolu itam daf constitution c'est la constitution de cinquante huit. anormal aussi. ci bi rek de. Uh-huh. loi yu bëri fii. da ngay jël ay euh, ay juriste ay expert uh-huh. ne leen defal ma constitution. wala defal ma code pénal wala code dañuy dem France rek. Uh-huh. cest c'est pas normal ça. tant que ñun tooguñ suñu suñu réalité yi ñuy dund mhm. ñu jël suñu experts yi mhm. ñu ñuy defal loi en fonction de nos réalités ñu mhm. avancé ci mais que bi ñuy changer le ministre en fonction de la justice tamit dina faciliter les choses parce que état day war a nekk continuité certes mais euh, bu ab bu ko ministre bi nekkee dans euh, en un temps record keneen ñëw foog forcément ay lenteur am ci ci ci yenn. pas c'est pas pour man c'est pas une question d'homme c'est une question de principe de vision et d'orientation. Mm-hmm. da ngay am vision ne man lii laa bëgg. Mm-hmm. sama loi di doxe ñii laa bëgg sama justice di doxe doxee. en conséquence nga jël nit ñoo xam ne. mun nañ doxal loolu nga teg la ñu doxal ko. Mm-hmm. mais jël tey miin parce que moo ma neex ma teg ko fii wala ma jël kay teg ko fee extra yooyu loolu doxal réew. liy doxal réew mooy da ngay programme ak vision. su ko defee ci ngay dem nag outil ñi nga xam ne épuisé nañ sa vision ak xam nañ sa programme boobu pour ñu doxal ko. mais il ne pas mettre la charrue avant les avant les jël ay nit rek teg di leen def leen lu leen neex suba ñu di leen teg fee tout ça il faut que nit ñi am il y a il faut dans la vision de comment, comment marche un pays. Mhm. Mhm. Paris. Je vais mhm. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'accélération du dossier Khalifa. Moi, je suis pas d'accord. Parce que déjà, en matière correctionnelle, mine, six mois d'instruction là. après six mois dañu war a enrôler mooy le principe donc lii def yëpp dafay yàgg normalement après six mois tu être jugé war a jugé c'est la norme loolu moo normal deux ans trois ans c'est pas normal et en général euh, euh, juge d'instruction en six mois dañuy pare seen dossier mmh. lenteur yi au niveau du parquet la mmh. qu'on le dise mmh. c'est au niveau du parquet que lenteur yi di am des fois juge da la naan mu pare naa instruction yàgg na mais parquet la enrôlement bi di am problème et correctionnel warul yàgg chambre criminelle léegi def nañ de telle sorte parce que ni da doon toog 12 ans duñ ko jugé man j'ai ans ñu lay door a jugé ans mais dernièrement da def 3 ans ñu jugé la en matière criminelle correctionnel dossier Khalifa du accélération c'est normal et on voudrait on voudrait que ni ñu traité dossier mm-hmm. Khalifa ñu mm-hmm. traité noonu yeneen dossier mm-hmm. Mm. c'est ça la logique. parce que je me dis que dossier Khalifa c'est la normal mm. comme keroog ñu ngi def euh, benn séminaire UMS mu ngi ko doon def. Mm. yaa Med Bamba Cissé mu ngi doon wax ne euh, que euh, en en en en au moment où défense en général défense moo doon def ay jéego di yéexantu pour dossier bi yéex mais dans le dossier xalifa c'est le contraire. que moo doon accéléré. défense di décès. na de loolu waaw man foo naan buñ la yóbboo damay li mu wax rek di accéléré <laughs> waaw mais dossier buñ la ah, yóbboo di la atte yow da nga bugg atte bi gaaw c'était le contraire dans l'affaire de Khalifa. Khalifa c'était moo tax ma ne traitement bi ñu def Khalifa nañ ko def pour tous les dossiers. Mm-hmm. et da nga ñëwaat ci benn pouvoir du parquet. keroog mm-hmm. yow da nga wax ci affaire Barada. Mm-hmm. juge bi Ibrahima Ndoye. il était là-bas. moom nga doon waxal. moom il a parlé c'est un procureur mais il a dit le le pouvoir exorbitant du procureur. au Sénégal procureur dafa am doole. sëñ bas sama xarit dafa am doole. dafa bëri doole. parce que au moment may ma ma àggali maître waaw procureur moment au benn ci benn décision da nga gis damay jël benn cas boo xamante ne dañu ko dund masali hmm. dafa ñëw ñu jugé ko ñu may ko liberté provisoire parquet hmm. waxul dara hmm. mu interjeté appel juge bi may ko juge bi daka may mu inter parquet dem interjeté appel mu dem cour d'appel juge yu may ko mu interjeté waat parquet interjeté waat appel donc au moment où trois juges du siège ñu toog jox benn décision un seul procureur il s'oppose et opposition ba mooy jàll. yéen de am ngeen te ñame tribunal ci ay journalistes exorbitant du procureur te loolu mm. c' est du siège keroog bi mm. un grand problème au Sénégal mm. il faut trouver des solutions euh, j'aimerais euh, euh, balaa maître di tontu ci dossier Khalifa est ce que mu ngi nekk procédure ba tey loolu bëgg naa mu tontu tontu ci mais dama koy denc permettre encore ki nga xam ne ni mooy abu Samb mi ñëw itam pour accompagner accompagner ñu parce que ñun euh, infotainment la information ak divertissement mu am euh, yu mu ñu baaxee ñu bëggal ci suñu papa ji euh, parce que maître dégg naa sa koñ da ngaa mel ni ku ñu seexal da ngay julli ji rek <laughs> julli ji rek waaw waaw yooyu fi la rek lii moom yëg naa ko moom da ngaa mel ni ku ñu seexal julli julli julli julli dafa am jàkk macha allah sama kër dafa am jàkk uh-huh. boo amee kër uh-huh. def ci chambre à coucher. jënd mhm. chambre à bu rafet. Mhm. di fa tëdd. Mhm. war nga fa utal yàlla dégg. dëgg la dee jullit nga. waaye bu nekkee doyul njaboot nga bëri dafa am jàkka <laughs> sama kër Touba dafa am jàkka fu ma tabax kër naa fa def jàkka. macha allah. fa jullee. benn jour imam bi benn imam bu bu scat dafa ñëw suma kër. di waxtaan ak man. waxtu wi jot. mu dégg nodd sama goro. imaam la woon. Mhm. moo daan nodd ci kër gi. Mhm. waxtu yëpp di jiite ci kër gi. macha allah mu ne ma ah nodd sa kër la ma ne ko ah jàkka jàng ci kaw. macha allah mu yéeg julli ne ma dinga lakk ñu bëri. est-ce que du ma la daan gis jàkka ja. Mhm. mais ndekete xaw ma woon ne sa kër dafa am jàkk mhm. imaam imaam imaam bari mu ngi may dégg mhm. mu wax ma ko mu seddal ma moo tax moo tax ñi nga dëkkal xale yëpp nee nañu paa bi c'est un prieur <laughs> jàkkaa nga fa taalibe yaa ngi macha allah macha allah taalibe yi ñoom macha allah sama kër la ñu dëkk macha allah waaw parce que sama soxna moom mhm. loolu moom ràññee nañ ko ci macha allah macha allah moom dama naan ko sax dama la yërëm dafay commandé ay ay ay ay ay ay ay comment dirais ki ay affaire koor yooyu di ko macha allah jàkk yëpp lay wër di fa joxe am di fa joxe na ko ay nit macha allah macha allah ko ko seedeel aussi kon jeex na dañu lay Sénégal de Sénégal il faut que yenn saa sax nit ñi di wane seen bopp di wax seen bopp dafa am solo mais parce que dañ mën a dëkkal nit ñi fu ñu dëkkut dëgg la waaw ku fi baax ñu essayé la bonal hmm. ah mais oui dëgg la de foo la ba ci sonne nga wane sa bopp wane leen may kan. parce que loo xam Masamba Masamba gën la xam. boppam jiw baax na bu baaxee xam na dëgg la de <laughs> baax na ci baax na ci dëgg baax na ci. di wax yaay kan. waaw c'est important. waaye man damay gis sax yenn taay internet yi nit ñi di ma xas ma wax ñu ne kii dafa màndi. waaw. dafa def nii dafa def naa extra. bu dee commentaire dana waaw dëgg lay def Sénégal du def dara. parce que man man yàlla laa gëm. Mm-hmm. yàlla may gis. su ma ko yàlla waroon war mu def ma ko kon ma tiit mhm. mais yàlla contraire bi la may wan. macha allah macha allah macha allah affaire nit moom. <laughs> kenn mënu ci dara. kon ñu delluwaat ñu delluwaat ci ëttub Seydi Hadji Malick ak euh, Abou Samb moom nag euh, mooy Mbappé wu sikarkat yi euh, Maodo Mohamed Ndiaye moo ko waxal sànq nga béggalaat ñu mayaat ñu leneen laataa ñuy àggali waxtaan bi ak maître Ousmane Seye dinañu àndandoo itam ak internautes yi parce que ñu ngi yónnee seen ay commentaires depuis sànq des na ay questions yu bëri yoo xam ne ni bëgg nañu mu tontu ci bu leen fàtte itam numéro téléphone yi à tout moment même bu fekkee waxtaan wi tar na ci plateau bi euh, bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ku ne euh, sa wërsëg bu nekkee ci ñuy séddale mën nañu la ko jox mën na doon sukkaru kooru téléviseur mixeur micro-ondes euh, machine à café wala enveloppe yoo xam ne bu ci nekk def na cinquante mille et puis mën ngeen am possibilité bokk ci ñi nga xam ni bëgg nañu leen yóbbu màkk ren dëkku Adja Mati Carter loolu yëpp nag bu ngeen ci bëggee da ngeen di composé numéro téléphone yi le en ñu bàyyiwaat leen ak Abou Samb bu ko defee mu béggalaat ñu euh, tey ci guddi gi ci télévision Futur Média. Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. Mm-hmm. xaa di nga xaar ma daaneel. di ziar mbooleem ñu nekk ci plateau bi. Mm-hmm. Euh, balaa may jëlaat. Mm-hmm. jaadu na ma nuyu leen ku ci nekk. yeesal sama cofeel ci yéen ñëpp. di ñaan Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam. ak mboolem xalifa généro yi li maître wax rek lay lay laay andi tuuti ndax Sénégal noonu la noonu la noonu noonu mel. kon du jamono ji lañu koy dindi ci réew mi. Mhm. ku baax ñu bonal la. Mhm. am na benn kilifa nee na man dégg naa lu ne lenn rek laa déggul mooy man mii ëmb naa. Mhm. kooku nag mënuñu ko dindi ci mim réew. waaye na nga xool ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ci ki doon jël mbalit di ko sotti ci buntu këram bés ñëw gisu ko mu dem seeti ko mu ne ko dama dama dama seetlu fan yëpp da nga daan tuur mbalit sama kër te gisatuma la lan moo xew te yonent bi gën ñépp waaye bañ gi mu bañoon yonent bee tax mu daan jël mbari di ko di ko di ko di ko di ko sot ci buntu këram mm-hmm. yonent bi indil ko pom indil ko banaana te pourtant wax na lu ne ci moom xolam mënatu ko mu ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna mm-hmm. muhammadan rasulullah sallallahu alayhi kon nag Sénégal moo dippee noonu mm-hmm. waaye Baye Cheikh euh, bi may tijji dama tijjee ak tabalay li tax ma tijjee ko mooy sama jur sama xarit la muy sam papa nee na ma boo demee woyal ma yonent bi tàllal naa sama ñaari loxo nga ànd koog gaay mhm. ma koy nuyu moom sama xarit la mhm. euh, bu nu ko woyee ak tabala ba noppi mhm. dañuy daal di dugg nag ci ki nga xamante ne tey nu ma mel moom la mu Cheikh Al sa waaj dara man bu nu ko woyee itam ba noppi danaa woy sa waaj yi itam Serigne Saliou euh, ndax daaw waxoon naa la ko fi nee man chanteur universel la mhm. loolu la yàlla dogal daaw de xale nga woon waaye ren ay waxi paa rek nga fiy wax <laughs> te daaw bi ngay ñëw da ngaa timide doon tout tànk <laughs> waaw xam nga Sénégal waaye ren moo ñëw waaw xam nga xam nga Sénégal euh, yow itam macha allah référence la ndax euh, sa waajur mhm. bu jigéen mhm. sama soppe la barki démb bi may ñëw di seet si sama grand frère Mawo Cissé dama dajanteeg sa rakk bu jigéen kon yow seen waa kër maa leen moom sa papa itam maa ko moom ndax macha allah ndax ndax ndax man lay bégee. macha allah te itam dañuy roy ci yow bu baax a mm-hmm. baax. Mm-hmm. ci ni ko sëriñ bi waxee. Mm-hmm. Euh, ci xam-xam bi. ci ni ngay bégalee nit ñi. nit ku ñàkk ñaan nga. way nañ nag yonent bi ak. tabala sallallahu alayhi wa sallam. Euh, bi nu koy woy ak tabala. man yëg-yëg laay woyee pap <laughs> wallahi wal quran yëg-yëg lay woyee. xale bu soj la nag moo tax. <laughs> wallahi xam nga. Euh, non Abu dafa màgg bizarrement quoi. <laughs> xam nga bi yonent bi di jógee Makka sallallahu alayhi euh, euh. ñoo koy woowee talaal talaal badru alayna mm-hmm. moo tax lii bu taaroo tey mm-hmm. yonent bi la xam damay jàpp ne rek mm-hmm. lu ma gis ne neex na war naa ko mën a woy ci yonent bi war naa ko mën a woy ci mag bi baax danaa woy nag Serigne Babacar waaye bii paa tabala yi maa ngi nuyu euh, sama xaritu xaadir yi nga xamante ne ñoom laa àndal. Mhm. bu ko defee nag ñu dugg ci Serigne kër si bégal leen. macha allah ayca kon ñu dem. ya cheikhana ya ahmada soppay sëriñ Babacar Si Maalik sëriñ Babacar Si nee na yaa Cheikhana yaa Ahmada Tijaani xutubul wujudi wa nicmatal akwaani sëriñ Babacar Si nee na Cheikhuna Tijaani moo raw ca gaaña bu ngeen demee ca Mawlaaya koo fa gis mu am raaya Cheikh ñu naan waaja Serigne Babacar Sy nee na yaa majmal baxrayni yaa alamal huda shamsul xaqiqati man baal irfaani sëñ Serigne Serigne Babacar Sy nee na Cheikh yem na rasuli wa xibaaw wa aminahu wa dhari wa cheikh Seydil Ahmada Tidiane ku fi gën a bëgg Serigne Babacar Sy Malick ñëpp def nii ñu màggal Serigne Babacar Sy Malick yaa li alaxtaabi wala xuwaasi walaw taadi tural xawsa na samdaani sëriñ Babacar Sy ngay woy cheikh sëriñam naan ko cheikh talaat lana shamsul huda kushifa duja kushifa duja liman ihtada sëriñ Babacar adal mar ma waxat balaxal ma daa yaa kon bu

bu ñu nee nit baax na te ay mbokkam waxuñu ko kooku baaxul sëriñ Babacar Si Maalik mbokkam yépp a ko seedeel mbaaxam kooku baax na xutbul xaafi xay ni daan baynal mashriqi aca yàlla na gën yàlla may seede daan seedeele loola xutbul xaafi ku sopp Si baynal mashriqi xalifay may seede loxo ca kaw lay lay la la la taala man de waaru du sëñ Babacar ay waay seede leen loolo xutbul xaafi ku sopp sëriñ Babacar si baynal wasiri ku sopp sëriñ Babacar si gën yaa leen bay seede leen seede leen loolo aca kii mooy xutbul xaafi xëy ni ana soppay sëñ Babacar nanu màggal sëñ Babacar loxo yi nanu màggal sëñ Babacar loxo yi nanu màggal sëriñ Babacar ku ko way taati aljanna ndaxu moo doonu maw loxo yi ndaxu moo doonu yi fa maar loxo yi loolu bëri naa xale yee soppu Seydi Baye daa mësuñoo gis sëñ Babacar ko ci waaxal mu nga naan barke sëriñ Babacar si mbay laa àndal loxo ifa mu fa mu Amadu na xale yee soppu Seydi xale yee soppu yi xale yee soppu mësuñoo gis Babacar ko ci waaxal mu nga naan barke Serigne Babacar si mbay laa àndal kon na innal manaila tagmimil masayaaw xoolal baay mbay doon ne mbay dafa demoon Casamance di way Serigne Babacar si Mali bay Cheikh mu ne ko mbay naari nee nanu maan hmm. fuuta nee nanu gongo wolof ni mbay daan nga eh, eh, xolal bàyyi cheikh joolaa yi nekk fële di kaas naan bàyyi mbay doon ne mbay lu tax nga ñëw suñu dëkk hmm. nga wak lu wolof yi wak wak lu tukkulóor yi wak te wakkoo ñun joolaay lu nu wak bàyyi mbay doon de jaaxle ndax déggul déggul déggul joolaa ne waaye xoolal dayoo sëriñ Babacar sëriñ Babacar Sy nga Tiwaawan man maa ngi fii ci Casamance te dégguma joolaan nan lay def xoolal sama turandoo fa mu toog ca Tiwaawan dekki jekki xoolal moom sëriñ Babacar il est le marabout le plus élégant le plus éloquent le plus historique de tous les marabouts du Sénégal sëriñ Babacar Sy Malick lorsqu'il sort dans l'impasse Il est la source des demeures. Sharia est la haqiqa. Un grand homme n'est jamais connu dans son propre pays. Serigne Babacar Sy nga Tiwaawan. Falal jékki-jékki rek daal di branché Baye Mbaye Donde Mbaye. Baye Mbaye Donde toog fa mu toog ca kanamu joolaay. Hmm. defaraat toogaay ba. Hmm. ndax la mu saf. kaka macca ko xam fa mu toog yëg na ni Serigne Babacar si roof na prise ba xoolal bàyyi mbay doon ne mbay jékki-jékki rek toog ak éloquent naan kililin kalala ko dem bay aca kililin kalala ko dem bay loxo kililin kalala ko dem bay aca kililin kalala coromar kono kililin kalala ko dem bay aca kaccan kala ko dem bay aca sangalang wisan kala ko wa kinga fuli da njay seedeelen lolo sidi abubakar danga seedeelen lolo golo dafa feebar ñu ne ko lan moo la feebar mu ne sump golo yow lan moo lay faj mu ne sump njaay dafa mel ni danga feebar te su ma juumul daan nga tagg yonent bi kon waxal li Baye Mbaye doon de wax micro daa man ata bi xilaasi faiqin duraran xajitama yujibu sudaan wal xurara ay baay zeyente mas nan ala xayril bariyati mat xat antalallaahu fi amdaahi suwara ay baay moom moo jëloon jànku xam-xam may ko waxambaanew jëfee amanta ak xanta ak mantal jamiya waxat an katamil amalin hi man ka ay baay géeju xam-xam nga tefes bi fa la gaañi daan yem wa bahru hilmika eh. yak naasa saahilu woo saahilu woo siyaani fii xaribun baydun shamara ay baay haza kitaabun nafiisun xad jamaxtalana fiihi l ahadika wal ayaati basiyara kon ma bàyyi la nga yeggale ya saaxidan fi sabaqi hmm. وبارع ببرعي لا تئرنا كيك كيف كيك كي سرين بابا كرسي مالك دمو wax bay Cheikh xam nga sama xol bi man maa ko moom sama jëmm ji man maay boroom sama baat bi man maa ko moom way naa Sëriñ Babacar Si Euh, ñëpp bég nañu euh, ci li nga wax ci Serigne Babacar Bakarek Daraman Arame loo Kumba Thiam bañ penda pate penda bëgguma penda xar yàlla bopp coor taalibe cheikh yi ku lim juum euh, mais ñu ngi leen di bégal xam naa ni guddi gi lu mu guddi guddi li ma ni sànq lu mu guddi guddi TFM ngeen di fanaan donc lii da koo firnde donc ñu ngi ciy bégal taalibe cheikh yëpp te pare gu ñëw ak Abou Samb bay bay maa ngi mhm. jéggaluwaat mhm. ndax daanaka fa laa waroon njëkkee mhm. yéen dama leen di sant bu baax a baax ñun sëriñ si lañu ñu am. Mm-hmm. Euh, bi may ñëw léegi léegi dama tasanteeg euh, sëriñ Habib. Mm-hmm. bu Cheikh Mouhamadulil Mansour bu sëriñ Babacar Sy. Mm-hmm. Euh, ma toog waxtaan ak moom mu ñaanal ma. ndax ñun ñooy seeni njaboot. Mm-hmm. kon nag ñu ngi leen ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a guddal fanam macha allah macha allah tey xam naa oustaz Pape Hann fa mu nekk kontaan na euh, abu euh, daañu àggaleeg yow di euh, ndokkeel taalibe cheikh yëpp Oumy Régina Samb taalibe cheikh la kontaan na donte joolaa la ci li nga kiling kiling gi nga wax sànq ci joolaay moom nee na bu dul woon ak mbay bu subaa joolaa yi dañ lay songu xeex ci kiling kiling gi donc moom ñu ngi koy ndokkeel gise pen Euh, moom itam di homme de culture bu mag taalibe Cheikh la fa mu nekk bëgg na gisee nguy ndaw ak ki nga xam ne ni moo di euh, Awa jàlloo euh, taalibe Cheikh Johnson Mbeng ki apprécie taxawaayu njaay beneen facette la gis boo xam naa daf lay doog a gis ci facette bi waaye ñun miin nañu facette bi donc moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax Kati jóob Euh, moom itam euh, taalibe Cheikh la Ndey Yaxara sa jigéen euh, moom tamit kontaan na Mbeyta Maguette Diouf moom tamit kontaan na Mbeñ Kandi Kandi Ballago en tout cas Kulim Dioum merci ci ni ngeen di apprécier li nga xam ne ni moom la fi abu Samb def léegi nii ak kan nga wax Mati na Seynabou Doucouré voilà moom itam taalibe Serigne Babacar la euh, Tafa Fall Bara Couture moom tamit euh, euh, taalibe Cheikh la Mass Ndiaye mi nga xam ni moom mooy filmé moom it taalibe Cheikh bu mag la daanu na ci abu sàmb ñu àggali waxtaan wi ak ki nga xam ni moo di suñu jur bile di maître Ousmane Seye encore kontaan nañu defe naa mën nañu àggali Marie Louise sànq li ma buggoon ñu mu tontu ci mooy est-ce que procès Khalifa Ababacar sàll procès bi dafa procédure bi dafa jeex ah, waaw euh, man ci sama xam-xam procédure bi jeex na. Mhm. parce que matière correctionnelle bu ñu demee ba cour de cassation décidé. Mhm. procès bi jeex xam nga amoon na fi benn débat boo xam ne. mu ngi woon ci affaire rabat d'arrêt. ñu naan comme def na rabat d'arrêt procédure bi jeexagul c' est suspensif. mais cour de justice de la CEDEAO atte nañu. moom moo saisir cour de justice de la CEDEAO. cour de justice de la CEDEAO jox ñu dëgg ñun avocat état bi ne woon. rabat d'arrêt du suspendre procédure. donc léegi mun nañu wax ne procédure xalifa Sall jeex na. Ah, bi mën nañu wax ni jeex na. jeex na tànk d' accord d' accord parce que man j' avais l' impression que jeexagul. voilà c' est mhm. bon man man nag dama bëggoon ñu évoluer un tout petit peu. Mhm. parce que mënu ko mënu ko fee am. mu nekk avocat Cheikh Béthio Thioune. Mhm. te amul ay question yu nga xamante dinaa ko ci posé. Mhm. Euh, Cheikh Béthio Thioune yàlla na suuf oyof ci kawam. te yàlla yokk leeram. yàlla yokk leeram yàlla ko xaare àjjana. Mhm. mais tey dafa am lu nga xamante daf may interpellé. parce que tey jii avant muy génn àdduna je pense que la veille muy génn àdduna justice am na décision yu mu jël. Mhm. benn bi mooy condamné nañ ko à une peine ferme de ans. en plus condamné nañ ko à des dommages de deux cent millions ak ñeneen ñu nga xamante ne ñoom la àndal. Euh, te li ma xam as tuuti ci droit mooy li ñuy woowee action publique nit bu génnee àdduna action publique ba euh, fay na daal. Mhm. ça veut dire que dix ans yi nga xamante ne ko loolu moom naax saay na mais li nga xamante ne. moom mooy euh, domage intérêt yi nga xamante ne moom lañ tegoon ci kawam. Mhm. dafay continuer di ko fay. waaw day continuer di ko fay. moom nag moo tax ma koy laaj par exemple ci loolu nan lay demee nan mooy suite dossier bi ci affaire bi. waaw loolu daaw de. Hmm. dañ cee accès hmm. li nga xam ne moom lañ mun a jàpp fi mu nekk nii. Hmm. mooy l'action publique la c'est éteinte par le décès. li nga xam ne nag mooy sur le plan civil. xam nga yoon dafa xóot. dégg naa ñu bëri di ci wax. mooy wax Sénégal ne dañuy wax lu ñu xam. moo tax ñuy laaj nag pour nga di wax aussi lu ñu xam di bañ a wax seen yéene. affaire sëriñ Béthio bi war na ñeen lu bëri. avant yàlla ñëw ak ndogalam. lu bëri wax nañ ko fi. buggoon nañ ko dëkkal feneen. yàlla ñëw weddi leen ñëw indi ndogalam. misaal la mais malheureusement Sénégal toujours yàlla misaal bi. da laa demee ñu fàtte ko. donc affaire sëñ bi. li ma leen doon wax dama leen ne taalibe Serigne Saliou la man taalibe sëriñ Saliou la Serigne Saliou du seexal ku matul seex. déedéet. xalifaam bi yépp kenn la fi seexal muy Serigne Béthio ku dee jullit ka di murit ngay jullit boo xamee loolu war cee màndu Serigne Saliou du seexal ku baaxul. du seexal ku bon du seexal kuy def lu bon sama loxo ca kaw. weeru koor lañ nekk parce que man xam naa Serigne Saliou Mbacke. mooy Serigne Touba. xura donc lii yee nañ tey. wallaay loolu teg nañ ko boor ñu ngi commencé da wax norom. dañuy wax lu ñu xam. te yenente jàmm. moo gën de fii réew mi toll. waaw fii réew mi toll. dëgg la de. nañuy wax lu ñu xam. Mm. di yenente jàmm. Mm-hmm. affaire droit boo ko xamul na ci maandu. Mm. ñun ay avocat lañ loolu mooy suñu métier. lan la xam nga euh, damay wax benn affaire tey su ma neexee man avocat mm. bu fekkee ne njabootu Serigne Béthio ànd nañ ci. Mm. procès bi dañ koy ubbiwaat. te naka li ñuy wax révision du procès. mun naa am élément mais pourquoi. parce que yoon dafa ne. bu ñu la àttee ba pare yëpp jeex. bu amee li ñuy wax élément nouveau lu bees ci dossier bi. mën nañ ubbiwaat projet bi. bi ñuy àtte Serigne Béthio man avocat dañu indi dossier médical bu wóor teg ko ci loxo juge bi. ne ko yoon dafa ne. ki ñuy àtte contumace contumace. mooy ki daw. mooy ki xam ne dañ koy àtte. mu bañ ñu àtte ko mu daw génn réew mi. sëñ Béthio daw ca du daw. wallaahi ca du nit kuy daw. daa feebar. dossier bii kuñ ko jox nga xool ko war a xam ne sëñ bi dafa dafa dafa dafa feebar. ñu teg ko fee mel na ñun man avocatam waxuma dëgg mel ni sëñ Béthio dara jotu ko. mel ne médecin yi nga assisté yi assisté yi attesté ne dafa feebar dañuy caaxaan man ku ma xam-xam ne man du ma waxoo caaxaan ñu woo ko xam nañ ma dans le barreau du ma fen parce que doomi aadama jaralu ma ko dossier bu ma yore dossier bu wóor la ñu atte ko comme ku daw loolu lañ ko atte ne non seulement dañ lay atte parce que daw da ngay daw feebaroo say avocat sax du ñu wax mais maître euh, doguma la. non bu ma dog. ok lañ ko àttee. ba quartier jàpp la. teg ko daan yoo xam ne kuñ duñ joxoon Pape Cheikh mi dossier bi tey muy àtte Cheikh Béthio ci dossier boobu du ko tëj. kenn du tëj nit ci njort. wala ci foog naa yoon daf ko bañ ba ne boo demee ba sa xel nekk ñaar da koy bàyyi au bénéfice du doute amul kenn koo xam ne témoin la ci procès Cheikh Béthio ñu oo ko bu taxaw ne Cheikh Béthio moom ma def law dossier bi amul benn pièce boo xam ne boo ko xoolee di nga xam ne Serigne Béthio moo joxe ndigal pour ñu rey amu fa mieux lañ ko doon jiiñ procureur ba ba mu defee conférence de presse bañ ko jàppee Thiès dafa ne mun nañ jortu ne Cheikh Béthio loxoom génnu ci parce que otoom sax dafa takk deretu nit ñu def expertise bi ñu ne nañ leen def expertise deret bi muy nekk deretu xar deretu mala ñu ne kër gi Cheikh Béthio nekkoon xeex bu mel nii mënu fay am ca déggul ay bali fetal jip nañ faw ak bruit bi war na ko dégg ñu ne nañ def reconstitution des faits ñu defaat reconstitution des faits ña fa nekkoon yëpp ñëwaat policiers yi ñëw gendarme yi ñëw ña fa doon xeex ñëw taxaw defaat xeex ba dañ ko defee woon ñu dóor ay balu fetal kër Cheikh Béthio set hectares la fii ma ma Médinatoul Salam nit ñi nekk biir kër Cheikh Béthio néegam fa mu nekkoon ñu sox bal fa yëf yi amee woon kenn déggul bal yi ñu ne nañ ubbi palanteer yi ubbi bunt yi soxaat ay bal kenn déggul dara te kii wàcc na sox setal nañ ko yëgul te nu malgré tout saa ñu condamné ko yàlla wàcc ak ndogalam dañ ko condamné altine talaata yàlla jël ko te jël boobu boo gisee certificat de genre de mort bi mooy feebar bi ñu waxoon ne moom sëñ Béthio daf ko feebar looloo ko yóbbu alaxira loolu du élément nouveau mu leer ne bu fekkoon ne gëm nañ ñu te amul benn raison ñu bañ ñoo gëm parce que ku dul wax dëgg mooy fooge ku kii wax ne waxul dëgg bu fekkoon ne gëm nañ ñu ne dafa feebar duñ ko atte duñ ko atte dañ koy excuser dañuy xaar ba mu si waat pour ñu atte ko loolu la yoon wax comme atte nañ ko ci kaw erreur ci kaw bañ a ñàkk gëm kayit yi nga xam ne mu leen joxoon te kayit yooyu yàlla leeral na ko nit sax leeral lu ko yàllaa ko leeral leeral <laughs> mais élément nouveau la bu ñu nekkee ju boîte procès man maa lay dox loolu. moo xaw ma dañ xaw dañ ko def duñ ko def xaw ma ci ndigal. Mm-hmm. damay bugg wax ne. bu ñuy wax ëllëg nañu wax lu ñu xam bu ñuy wax affaire yoon nañu wax lu ñu xam parce que yoon dafa sew mais li nga xam ne moom moo am importance li nga xam ne moom lañ mën a jàng mooy Sénégal nit ñi nañ yenente jàmm nañuy wax lu ñu xam affaire Sëriñ Béthio bi firndeel na ko mais dafa amoon acharnement ci moom ndaxte bu ñu dégloo preuve yi nga wax ni moom la ñu jël indi ko ne moom la ñu am ci moom bi ngeen demee ba def expertise amul benn bi nga xamante ne mun nañ ko prouver euh, euh, euh, ci ci ci kanamu ñi ko doon àtteeg ñëpp ba pare indi woon ngeen luy firndeel ni moom dafa feebar kon lan moo waral loolu yëpp jëluñu ko en compte ci biir procès bi. ah kooku da nga koy laaj ñi ko àtte man constat laa def te kenn mënu ko dindi. li ma constaté nii kenn mënu ko dindi. tëj ko mais ñoom lañ ko naka lañ ko jëlee. te dogal bi ah? wàcce. lii bi ñu yëgee nii cheikh bi euh, faatu na naka lañ ko yégee ñoom ñi nga xam ne ñoo taxawoon. lànk dossier bi ah leen ko <laughs> man li ma yëg laa xam. ñoom li ñuy yëg laaj leen ko. lu ne am nañ ko fi wax am nañu taxaw sax ay avocats yu taxaw ne ñun dossier médical bi ñu yoree c'est un dossier médical de ah, complaisance ah, waaw man bañ ne. dañ koy àtte parce que dafa ndaw ci avocat duñu wax ca laa fa jóge dem suma yoon xam li ma xam xam na yàlla dinañu àtte macha allah donc defe naa defe naa loolu leer na on va on va on va retrouver quand même euh, parce que du ñun rek bëgg euh, waxtaan ak ak maître sénégalais yaa ngi ñuy bind depuis que ñu annoncé nii mooy nekk invité Euh, quartier général donc dañuy dem euh, cent vingt 221 c'est ça fekk fa euh, Mamadou Ndiaye ñetti fan yi nag damaa jëm mag donc du coup pour ma jóg dina metti mais dama la bàyyi nga jébbal ñu question wu internautes yi Mamadou Ndiaye. Pape Cheikh euh, comme ni nga ko waxee en tout cas dañu jóg ci di remercier bu baax ñi nga xamante ne mooy suñu mbokku internautes yi. Mhm. bari nañ ci du yónnee seen i commentaires ak seen i questions mu nekk lu am solo. Mhm. loo xamante ne vraiment internautes yi ñuy remercier di wax ni. Mhm. porte bi ñu jox ci émission bi di quartier général li ñuy jëkkee rek mooy li nga xamante ni mooy di suñu vidéo yi nga xam ne numéro bi joxe nañ ko sànq. tànn nañ ci ñaar fii ci régie bu 221 ci télévision Futur Média fii nga xamante ni fi la ñuy seetloo ak tànnee questions yi mën nañ ci dem euh, déglu benn question pour suñu invité. Euh, ma amoon benn ak ñaari question yu ma bëggoon posé seen invité du jour maître Ousmane Seye muy nekk avocat dañuy dégg souvent maître ñuy wax ni que dafa am un bon avocat et un grand avocat ñu ne un grand avocat mooy ki nga xamante ni day jël lépp li nga xamante ni yoon may na ko ko sukkandiku ci ngir def liggéeyam mais ñu ne un bon avocat mooy ki nga xamante ni moom maanaam lépp li nga xamante ni yaakaar na ne bu ko defee dina antal liggéeyam wala bu ko defee dina am lu mu bëgg da koy daal di def foofu ñuy wax ni que la fin justifie les moyens Euh, ma koy laaj moom nag maître moom bal la ci grand avocat la wala bon avocat la ndax ñu koy dégg ci ay ay ay yu bari voilà beneen bi ci topp moom mooy dafa jëm ci la vie politique bi ñu jógee ci élection présidentielle yi dañu dégg ñu ne wax ci ne am na ñoo xamante ni nii ñu ngi euh, xool ak a def ay pexe pour que le président Macky Sall mën a demander troisième mandat en 2024 bon technicien du droit yi ñenn ñi ne constitution bi mayu ko ko ñeneen ñi ne constitution bi disposition bi nga xamante ni moom moo ci moo koy traité en l'espèce nekk na disposition boo xamante ni leeralul mbir mi carrément ma di ko laaj moom en tant que juriste de formation en tant que avocat ak expérience bi nga xamante ni moom la am ci wàllu politique ndax président de la république. Euh, voilà réponse rapide maître deux questions la yónnee ci vidéo waaw première question bi. Mhm. Euh, la fin justifie les moyens foog naa kooku du jëlee avocat. Mhm. avocat dafa am règle am ordre am déontologie mm-hmm. lépp lu muy def daf ko war teg ci yoon mm-hmm. teg ko ci règle ordre am teg ko ci mm-hmm. déontologie ordre am euh, diligence lañ ko wax avocat il n'est pas tenu au résultat par exemple client du ñëw nga ne ko dama lay génne kaso par force wala procès bi da koy gagné loolu moom ko avocat mënu ko seq ak client mais dinaa def sama këmti kàttan teg ko ci yoon. teg ko ci sumay règle déontologique. teg ko ci samay règle professionnelle. lépp loo xam ne xam naa ko ci lu sell dinaa ko def. pour satisfaire la mooy euh, obligation de diligence loolu lañ laaj avocat. d'accord voilà. voilà deuxième question. deuxième question bi loolu je crois que euh, franchement dama dégg ñu koy wax. mais boo liiree constitution bi. bu ñu bu ñu bu ñu jaawalee li amoon euh, temps yi Ablaye Wade ak li am fi mu nekk nii. Mm. parce que constitution bi benn la gaa mais dañ ko réviser mm-hmm. dañu modifier article vingt sept mm-hmm. article vingt sept bi nekk ci constitution mm-hmm. bu njëkk ba article vingt sept da doon wax ci affaire u mandat ci affaire u mandat doon wax article vingt sept bi waxatul affaire u mandat nit ki yore mandat bi lay waxal maanaam président bi nga xam ne moo moo nekk euh, moo nekk en fonction lay waxal ne nul nul boo déggee caution caution bi di nul nit ki lay waxal nul ne de deux mandats plus de deux mandats mooy amul kenn koo xam ne bu la falee nga nekk président de la république am nga sañ-sañi def lu ëpp ñaari mandat de cinq ans d'accord loolu kay doy na waar lool kay leer na mooy président Macky Sall kenn mënut weddi ne def na benn mandat mhm. de sept ans moom la président Macky Sall du keneen mhm. def na mandat sept ans falaat nañ ko pour mandat de cinq ans muy ñaari mandat moom ci boppam di président Macky Sall mënatul def beneen mandat. voilà donc loolu la question bi wax. mais li mhm. induire ñi en erreur ci article boobu. Mhm. c' que comme ni la wax article vingt sept bi ñaari alinéa la yàlla veut dire ñaari paragraphe. Mhm. paragraphe bi mu njëkk bi daf ne la durée du mandat président est de cinq ans. après yokk ci nul ne peut faire euh, plus de deux mandats consécutifs. léegi nag ñi ngi interprété. dañuy wax ni. kenn du def ñaari ñaari ñaari mandat cinq ans consul parce que président Macky Sall premier mandat am sept la donc dañ jàpp mu defee deuxième mandat bon peut-être premier cinq ans bi la mën a defaat beneen cinq ans mm-hmm. loolu moo indi interprétation ah, xam nga mandat eh mm-hmm. boo koy déggee ci droit mandat la mm-hmm. mën a doon un an mën a doon deux ans mën a doon cinq ans eh. mën a doon sept ans boo nee kenn mënul def ñaari mandat mais mandat bi mun na nekk sept ans mun na nekk cinq mun na nekk dix ans mun nekk un an. Mm. def na benn mandat sept ans mu bu def différence bi ci man durée mandat bi loolu. constitution mm. bi réglewul problème durée mandat bi. Mm. loolu réglé nañ ko ba pare c'est mais dafa ne nul ne peut faire plus de deux mandats. consécutifs consécutifs. mandat nag mun na nekk cinq mun na nekk sept ans mun nekk un an. donc boo ko jàppee noonu. il faut que nit ñi aussi. Mm-hmm. di xam nga constitution boo koy def. Mm-hmm. dafa am article. mais avant article bi dafa am ay discussion moom moo la wax débat parlementaire am préambule loolu ci constitution bi la bokk maanaam boo demee ci waxtaan bi ñu doon waxtaan assemblée nationale di député bi bu ñuy débattre lan moo doon seen préoccupation mooy amul benn président boo xam ne nañ ko fal léegi mu def plus de cinq ans plus de deux mandats de cinq ans préambule bi ni mu koy expliquer c'est la même chose dafay wax dañuy def article vingt sept bii pour empêcher à partir de maintenant am président boo xam ne bu ñu ko falee dina def plus de deux mandats de cinq ans. Mm. donc loolu boo ci dégg nga xam ne esprit bi esprit caution bi. Mm. moo doon arrêt mooy limité mandat yi. donc je pense que réponse bi leer na par rapport ak ma dégg naa sax ñuy wax ne wéy dañuy demaat ci dialogue bi ñuy def il faut ñu def dialogue pour encore réécrire encore constitution beeg yooyu mais dañuy indi problème yoo xam ne amul. Mm-hmm. pour di ko kii président Macky Sall ci boppam wax na ne du ko du ko def jëmewu ko def. mais mais askan ko ci bàyyi. Mm-hmm. loolu jeex na fi. Mm-hmm. c'est fini. voilà retour waxtaan. beneen question. beneen question dañuy delluwaat ci beneen vidéo ndaxte ci tàmbali wax waxtaanam wax na ni euh, dafa bokkoon ci avocat wu ñi nga ki nga xamante ne mooy Thione euh, Seck am nañ benn vidéo bu ci tànn mu nekk benn question pour moom. Eh, bonsoir. Mes chers amis de la TFM, vraiment j'apprécie votre émission à 100%. Je veux poser une question à, euh, à propos de l'audience euh, concernant l'affaire John Sec contre ministère public. Et tout à l'heure, en fouettant le, le, le net, j'ai vu que le, le procureur a requis 8 ans ferme pour John Sec. et ça vraiment un peu bizarre, un peu, un peu, un peu, un peu compliqué pour Thione Pour ces raisons, je voudrais poser cette question à Merci, votre invité du jour. Merci, Malick Faye depuis Kaolack. voilà internaute bu ko posé depuis depuis Kaolack. Euh, ah Kaolack de Fala foofu moom sama dëkk la Fala ah, jànge Fala yaw ah, ah. donc maa ngi koy nuyu di nuyu waare waa Kaolack. di mm-hmm. nuyu sama yaay mm-hmm. Mm-hmm. da ko ci boole. wax mm-hmm. dëgg yàlla sa ba bu mu bëgg la. macha alors euh, li mu posé question effet procureur requérul huit ans. Mm-hmm. huit mois la wax. huit mois ca bi mu koy wax aussi moom Thione Seck dañ ko doon topp ci ay délits yu bëri euh, maanaam ne dafay trafiquer ay billets dafay falsifier ay bi billets de banque. def escroquerie def lépp mais moom procureur finalement ci benn rek la ko benn délit rek la ko topp mooy détention de fou benn délit rek tey Sone Seck liñ koy liñ koy liñ koy topp ci procureur li mu wax mooy dafa yore billet bu baaxul ne nag nañ ko tëj deux ans dont huit mois ferme procureur moom loolu la requérir mais procureur du juge ñun dañu nañ ko bàyyi léegi nag juge bi mooy décidé. ñu ngi xaar verdict bi le 23 mai incha allah. voilà donc loolu mooy loolu mooy réponse bi euh, j'arrive pas à lire euh, question bi Mamadou Ndiaye euh, kii lan la wax. jàppale la ci mooy question bi nga xam moom lañ choisir ci compte Twitter bi di hashtag bi di QGTFM muy Ibrahima Diouf moom dafa laaj maître est-ce que moom maître day plaider pour un citoyen ordinaire est-ce que les plus est-ce que dafa yomb na pour nga plaider ñi nga xamante ne mooy état bi wala nga contre état bi par exemple mu joxe kaaw Khalifa Sall ak kaaw Karim Sall Karim Wade. waaw man ci citoyen ordinaire yi kañ leen plaider ci laa dëkk ku ma xam-xam ne loolu la te duñ ma fay sax. Mm-hmm. <laughs> magistrat yi xam nañ ko avocat yi xam nañ ko ñi dem tribunal xam nañ ko saa yu su ma solee suma ma mm-hmm. man ci sama bopp personnellement dem audience di plaider. Mm-hmm. dafay fekk nit koo xam ne sama mbokk la wala sama xarit la wala dañ ma booleek moom mu nekk un citoyen ordinaire. mu jaral ma man ma dem jël sama rob dem plaider ko personnellement. sëy nag dafa am dossier yoo xam ne c'est des dossiers médiatisés yàlla def ma ciy bokk mais du dossier rek laay plaider tous les jours suma cabinet ngi plaider tous les jours am na ay euh, yoo xam ne tribunal la nekk te yàlla xam ne ne man avocat laa xam ne boo xam ne ñi may fay bëri wuñ la ci citoyen ordinaire dama leen di dimbale rek ngir yàlla état aussi nee nañ yoral yoral nañ la honoraire yu bëri est-ce que état yoroon na la xaalis xam nga yow la ngay fay fii ndax wala <laughs> ay salaire wala wala par cheikh. man maa ngi posé question ci dara donc bu ma xamal dara xam nga avocat moom honoraire mooy salaire am. ni ngeen di nëbbee seen salaire yooyu. ñun tamit suñu honoraire. état da la yoral honoraire mooy dossier la war a fay yu nga xamante ne dossier état la. ah état daal xam est-ce que loolu am na. xam naa daal bu ngi góorgóorlu di fay. mais mais Pape Cheikh am na question bi lu mu ci laaxaale nee na ndax Mm-hmm. man dama mos plaider contre état. mais du am conflit d'intérêt comme yow da ngay actuellement nii. Mm. ma nekk avocat de l'état. waaw waaw man ku ma xam. xam ne opposition laa daal plaider ak journaliste. Mm. avant que Ablaye Wade di ma jël di ma def avocat de l'état. fii ku fi mun sa poursuivre. nga nekk homme politique depuis ñoom Mame Less Dia laa wax ah? ba ci tuddal naa leen ko léegi ñoom ñoom taala si la bi ñu ko fi doonee ay marto kan ko defar mhm. man la ak bon ma Madiambel Diagne journaliste ah Abdou Latif Coulibaly journaliste man opposition rek laa doon défendre mhm. wax naa leen ne bi may am bac man dama xawoon léegi moi j'étais te euh, rebelle. Euh, man je je, je je suis un indépendant. bañkat pouvoir ah. bañkat laa. même bi ma nekkee université nit ñi xam nañ ma. Mm-hmm. ñaata lañ ma jàpp ma nekkee université avec des documents clandestins et tout ça. <laughs> ah yóbbu ma suma waa kër xam fu ma fanaan ndekete police la si ma. ah du ko Albert vraiment j'étais rebelle. à mm-hmm. au pouvoir j'étais indépendant. Mm-hmm. ca xeexkat laa bañkat li ma def université fii yëpp man maa doon dirigé amical yi. Mhm. grève yi fa am nga ne UNAPES laa nekkoon maa nekkoon chefu mhm. mhm. di xeex ci xeexkat na ma njaago yi baal mais xeexi njaago lay doon. waaw te xeexu du jeex la ñu wax <laughs> na am na question léegi nag moom dama a jëm mag sama doom yaa ngi nii. tout ça baa ngi xaw a kii xam naa pouvoir ne bon ñëpp a ko bokk. et tout damay dimbale damay dimbale pouvoir bi pour mhm. mais waxoon naa de. voilà je vais finir avec une question qu'on a reçue depuis très longtemps ba tey <laughs> ah? dama bëggoon ñu dem ak euh, une question bu ñu am depuis cinq euh, mu ngi jógee euh, ci Nafisatou Diallo que nous embrassons d'ailleurs moom nee na ban lecture le maître Sey di def ci affaire Karim Wade de la cour d'exception bu CREI yi mais aussi de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui instruit le Sénégal de réviser le procès de Karim Wade ou tout simplement d'effacer euh, toutes les peines euh, découlant de ce procès unique euh, de la CREI. waaw xam nga euh, comité des droits de l'homme du tribunal. ay expert la man mënoon naa nekk comité des droits de l'homme yow mënoon nga nekk comité des droits de l'homme seen xalaat la ñuy wax. Mhm. mais mënuñ jox benn instruction benn ordre. que état que ce soit nga xam ne danga nga àtte suivant ta souveraineté ñii ñoo ñu la at ni nga àtte da nga koy reprendre loolu xam nga xel sax mënu ko nangu. Mhm. ce n'est pas possible. Mhm. bu nga ko fexee bu fekkee ne ñoom ñoo ko wax. ils ont outrepassé leur compétence. Mhm. amuñ benn compétence état àtte muy Sénégal muy keneen ñu ñëw ay experts nga xam ne ay avocats ay magistrats ñiy retraité ñi bàyyi kii ñu jël leen foofu. ñu ñëw xool c'est des juristes comme nous ah dàqu ñu jànga xam loi man j'ai fait toutes les instances là en tant que militant de l'homme ca ma ci bëggoon bokk bokk la da nga koy reprendre fu ñu ko teg c'est la souveraineté qui prime même cour de CEDEAO mënul wax Sénégal loo xam ne daf koy contraindre pour pour pour pour pour pour mu appliquer ko. maintenant CREI moom ñëpp xam la mais du mun a far ci tribunal boo xam ne suñ la àttee munoo am appel dem dem dem recours de pouvoir euh, euh, voie de recours loolu man maa ko fi njëkk a wax. Mhm. ca man Macky Sall laa àndal. mais nag man lu jaadu ci man dama koy wax. Mhm. d'accord ma ci kër yi tey d'accord ma ci kër yi ëllëg ca la ma leen waxoon gis nañ ko. Mhm. nee naa leen c'est une juridiction d'exception Sénégal weesu na. fu mu waree am juridiction d'exception moo tax décision bu fi rendre boo demee bitim réew ñu rejeté ko parce que amul tribunal bu mel noonu foofu amul fa France amul États-Unis amul fenn mhm. dama xamul sax lu ñuy xaar ba léegi ba defar ba wuñ CREI mhm. buy ah. xaar mais mais euh, su fekkee ne loolu la est-ce qu'il pas temps de revoir alors le procès de Karim Wade <laughs> non non il faut pas confondre deux choses ba sànq da jël en référence la CEDEAO cour de la CEDEAO nga ne jox nañ leen dëgg si bi Khalifa Sall defee appel ñu ñëwati nga ne CREI. cour d'exception bi euh, bi euh, bi Khalifa Sall defee voilà yéen la ñu jox dëgg kon. am nga gëdd boo leen jox cours boobu pour nga citer ko. mais jox naa leen dëgg. voilà bi ci dama ne te bi bi Karim yóbbee foofu euh, dossier dossier bi ñu traité moom la ñu jox raison à plusieurs reprises. suñu ko joxee raison. ci ñun dañuy lire presse bi jox nañ ko à. non non demee de la moom la ñu jox raison. lan la wax ne bi ci des da nga ne. cour d'exception bi nga bi ci des da nga ne cour d'exception la maanaam répondrul aux normes bi nga xam ne tey euh, day respecter les droits de l'homme parce que mënul défendre boppam est-ce qu'il n'est pas temps kon ñu ouvriraat dossier boobu teg ko ci yoon. da nga jaxase ñaari yëf. da nga jaxase de la CEDEAO ak CREI. ma ne li wax ni ma ko déggee jaxase laa ko gis. <laughs> yow Yacine. xanaa nga leeral lay conjugué verbe partir léegi. au présent de l'indicatif. surtout cour Sénégal jox na ko gëdd bi mu war a am. <laughs> dama ne ñoom ñoo ko waxal seen bopp pour CEDEAO ñoo ne amuñ droit sañ-sañ Sénégal atte ba pare ñoom nekkuñ juridiction d'appel. nekkuñ cour de cassation. amuñ sañ-sañ Sénégal atte ba pare ñu ne ko li nga atte baaxul wala baax na li ñu mën a def rek mooy jox ñu ay recommandation ci suñu atte. dossier xalifa Sall bi ngay wax li mu wax bëri na li mu wax bëri na. am na yoo xam ne jox na ci xalifa Sall dëgg am na yoo xam ne joxu ci Khalifa Sall dëgg. ca nga xam ne jox na fa Khalifa Sall dëgg dañ ko appliqué fii. arrêtel dossier Karim Wade luñ ci wax. Mm-hmm. Euh, waaw waaw est-ce qu'il n'est pas temps kon ñu ouvriraat euh, ñu xoolaat euh, jugement bi ñu appliqué. à travers non non non CREI man kooku suma gis-gis la man maane ne juridiction boo xam ne bu amul voie de recours man duma ci ànd mais terewul CREI loi sénégalaise moo ko créé. ay député sénégalais moo ko créé ñoo créé créé yi créé seen composition ak seen fonctionnement donc c' une juridiction légale am na ñu fi waxoon ne créé yi amul c' pas légal ak yooyu mais démontré naa leen bien que man nee naa d' ma ci ni muy doxalee mais c' une juridiction légale qui existe bu rendre décision décision yooyu c' exécutoire mm-hmm. waaw c' pas parce que d' accord ma ci fonctionnement bi que d' ci décision yi ñu rendre voilà euh, Daouda je pense